ñii naan ay nervi lañu wala ay force de défense sécurité lañu mhm. wala ban façon lañu. Mhm. ñëw sol seen jean ak seen t-shirt euh, ñëw jël nit dugal noonu. Mhm. amul gisam police day am xàmmeekaay boo solul yëre police da ngay am xàmmeekaay boo xamee ni ci sa brassard lay doon xeetu brassard lay doon bu ñu bind police pour wane ni yow police nga bokk ci yenn situation. pour wane ni police nga bokk am na parce que yoon moo may. ku ñëw bëgg laa arrêté qu'il exhibe benn identification pièce d'identité boo xamee ni carte police lay doon wala badge wala bu gendarmerie pour wane ni man dama bokk ci force de défense et de sécurité mm-hmm. am naa sañ-sañu comme am ma xàmmeekaay ci nu ma solo am naa sañ-sañu won la badge buy wane ni mm-hmm. fii laa bokk ne la da ñuy war a topp mm-hmm. par force ñu xam ne police la arrêté wala gendarmerie ma la arrêté même police en civil parce que comment distinguer le policier en civil du citoyen armé et qui est civil euh, Thiala si j'ai mon pistolet ci man amul lenn luy xàmmee ndax policier laa wala du ma policier mën ngaa ma jàppee sax RG wala nga jàppee ma je sais pas ner bi wala leneen mais takk naa sama pistolet parce que am naa sañ-sañu takk ko ndax détention wala port d'arme moo lay may lu mel noonu nga ñëw ci bërëb boo xam ne dañ lay gis ak sa permis de nga yore sa sa sa sa pistolet. Hmm. solu euh, kaki mais du ñu xamee ndax kii police la bokk wala bokkul police. Hmm. lan moo may distinguer man citoyen bi nga xam ne euh, am naa fetal je suis parce que am naa sañ-sañam. Hmm. ak policier bi nga xamee ni moom am na fetal armé am mënat am carte professionnelle am. bu solul tenue xam nga mu am brassard buy wane ni police la bokk ci yenn manifestation wala bu ñuy def ay euh, par exemple ñuy dem di def ay rafle mm-hmm. wala euh, ñu euh, exhiber la surtout que mm-hmm. yow doo criminel jàpp ñu la ci rey nit wala ngay jaay drogue wala dara mm-hmm. mais ci mbirum opinion wala politique wala yenn dañ lay won seen carte ne la ni man police la wala man gendarmerie la dañuy topp législation ak euh, li nga xam ne moom mooy ay recommandation ak lu ñu signé ñun bokk ci CEDEAO ñu ne bu buñ la yóbbee sax fu mu mën a doon am nga sañ-sañ gis sa avocat ci ñaari fan yi mm-hmm. waa léegi bu dee dañ la yóbbu kan moo la yóbbu xamuñu ko mm-hmm. ñi àndoon ak yow gis nañ daal benn fourgonnette dugal la ci biir oto yóbbu la mm-hmm. xamuñu ndax police la xamuñu ndax gendarmerie la xamuñu ndax eh, benn samba booy mu jógee fële ànd ak ay garde du wala ay nervem mm-hmm. ñëw ne ni diw jàpp leen ma ko foog ñu dugal ko xañ ko jant bi. Mm-hmm. xamuñu ci dara état de droit ne fonctionne pas comme ça. état de droit du mm-hmm. fonctionner noonu. alors vraiment il faut que euh, je suis très d'accord avec ñii di waa FRAPP. Euh, ak waa mhm. ñu koy waxee ñi ñi ànd ak Daouda Gueye euh, que je connais peut-être au téléphone on s'est jamais vu mhm. parce que souvent dañuy yónnee seen demande de couverture wala yenn ci ay communiqué yu jóge si ñoom mais bu ñuy wax téléphone dañ la ne kii ñu ngay waxal téléphone ku am respect la ci nit mhm. mais je suis d'accord ci ñu war a lijjanti ñan ñoo ko téye ak lu tax ñu téye ko. bu fekkente ne euh, euh, maanaam dañuy ñëw téye nit tout simplement euh, te du am benn justificatif c'est-à-dire man Birahim Touré je pense que normalement sax boo fekkente ne maanaam yoon moom bu bëgg teg loxo nit war na mën a am en tout cas des avances war na mën a am peut-être ñu envoyé maanaam benn convocation par exemple wala sax bu ñu ñëwee comme ni nga ko waxee que ñu présenté wu ba nga xam ne là c'est la justice qui est qui qui qui est venue euh, mm-hmm. pour pour pour Diegma mais boo xamante ne dañoo jékki-jékki rek gis fourgonnette mu taxaw sa kanam et puis on te comme ça euh, de façon euh, injustifiée donc je pense que loolu vraiment war na war na mën a tiital askanu mm-hmm. Sénégal. man je trouve que man je trouve que li ñu def yëfu bandi la. Mm-hmm. parce que li ñu def c'est que c'est digne d'un d'un d'un film. Euh, à l'américaine ah. parce que boo doon gisee vidéo bi oto bi dafa gaare rek gars yi ubbi fourgonnette bi wàcc. amul sax su fekkee vidéo waa mi ngi mi ngi waaw bu fekkee waa régime mun nañu ko jàllale. Ah. waaw donc wàcc rek. Mhm. ubbi génn. Euh, jàpp leen allez dugal leen ci biir. Mhm. mais loolu loolu loolu loolu ça se fait pas. Mhm. loolu mënul euh, du yoon. Mhm. bu fekkee ne c'est des éléments yoo xamante ne nii c'est des éléments de force de défense et de sécurité bu ñuy ñëw di jël nit mais dañ ko war a prévenir ne ko saawaay dañoo ñëw pour jël la ba pare wan ko li tax li li wan li wan ko li waree que ne. ki koy jël si moom dafa bokk ci ñi ko war a jël si. aussi tamit wax ko li tax ñu war ko jël si. tey jii euh, ñoom ñii niñ la te te ñi ñu jàpp. ñoom dañoo obtempéré de. parce que dañ leen ñëw jël leen ñu dugg après ñu dugg. mais imaginel tey jii bu ñu bu ñu meloon ñoo bu ñu nekkoon ñoo xamante ne nii dañuy nekk foofu di xeexoo wala di xuloo kon su boobaa gaañante dina fa am et su boobaa beneen coow lay lay lay lay lay lay lay indi. Mhm. man je trouve que vraiment li ma li ma seetaan nii. Mhm. du dëgg du yoon teguñu ko fenn. Mhm. nit du nii lañ koy jàppee. dafa am ay procédures yoo xamante ne nii moom dafa am ay procédures yi nga xam ne nii moom la ñuy jaar pour mën a jàpp nit. en plus ci mbedd bi mel ni comme di jàpp mel ni comme kuy jàpp malfrat quand même am na yoo xamante ne nii c'est pas c'est pas normal c'est pas du tout normal. gannaaw ba ñu ko ubbee fukki fan ak juróom-benn ci ci weeru mai. kooku xam nga ni bokkul ci